ngeen ñu élire leen ci même suffrage direct. donc mënul la fi jëlee. mais liste yi bi ñu génnee fu mu toll nii c'est kii le gagnant ak c'est qui le perdant. Euh, liste euh, député yi. Hmm. liste provisoire yi bu mu génnee. Hmm. ñu ne takku wallu ñu ne sàmm sa kàddu trois députés euh, Pastef cent et quelque députés affaire yi. Hmm. c'est qui le gagnant carrément kan moo gagné ak kan moo perdre. Bon, le vrai gagnant, c'est le peuple sénégalais d'abord. L'autre gagnant, c'est Ousmane Sonko. L'autre gagnant, c'est Pastef. Et quand je dis ça, mooy nombre bi député bi ngay am askan bi moo la koy jox. Mhm. ñu ëpp ci askan bi tey voté ñoom ñooy nangu ànd ak yow donc ñoom bu amee ko gagné ñoom la. Mhm. coow mënul na am déggoo ko fenn ci dëkk bi déggoo kenn ku ni sànni xeer. Euh, déggoo kenn ku ñu toj boppam policiers yi xulowuñu ak kenn gendarme yi xulowuñu ak kenn loolu maturité askan bi la. Mhm. donc ñooñu ñooy le vrai les parce que bu ñu amoon yenn comportement bi nee naa la di nga dégg ñu ne la dëkk sàngam sotti nañ tuur nañu bulletin yi naaw na. Mhm. wala ñu ne jàpp nañ diw. mais jamono ji bon mun naa mun na am mais mu dégguma benn yoon benn dëkk ñu ne. gaa ngi xeex. Mm-hmm. te mënoon na am. Mm-hmm. léegi ñooñu askanu Sénégal vraiment ñoom ñooy vainqueurs yi mais danoo jël seen carte jox ko nit jox ko une liste boo xamante ni c' est contre quarante ñoom ñu tànn ko ci. Mm-hmm. ñu ni ko yaa ñu doy kooku aussi vainqueur la maintenant euh, bu dee dañuy dem mbirum politique le vrai vainqueur bu dee politique la ñu wax léegi le vrai vainqueur c' est Ousmane Sonko et Pastef. Ousmane Sonko est passé mooy le vrai vainqueur. Mm-hmm. léegi nag il y a beaucoup de perdants perdants yi bokk na si ñi nga xamante ni sans coalition amoon nañ benn. Mm-hmm. ñu dugg ci coalition ñàkk ñooñu c'est des gros perdants parce que euh, Pape Djibril Fall su ma jumulee euh, deux mille vingt deux la njëkk a ci élection. Mm-hmm. mais dafa am benn député. au moins. mu demal boppam am benn léegi nga dem ak nit ay nit ak ay ay nit au moins six leaders nga amuloo sa benn kon yow sa mbooloo boobu nga mbooloo amewoo ci da nga ciy ñàkk mm-hmm. boobu dee da nga dem ci PUR moom tamit noonu la PUR au moins 2017 élection 2017 yi Macky Sall organisé woon ma ñëw ba vingt deux moom au moins amoon na ñetti député ñett. Mhm. te moom moo demaloon boppam. PUR dañuy dem ba ñu ne la troisième force politique du Sénégal c'est PUR. Mhm. mais est-ce que c'est cohérent politiquement nga nekk la troisième position nga troisième force politique du Sénégal et tu peines à avoir des députés waxuma la à avoir un député mais des députés. 2017 tu as 3 2022 mu yokk mais 2024 nga dem coaliser ak ñi amuloo ñaar. parce que pour nga am ñaar il faut au moins douze personnes jàll cest dire que quand je dis cela mooy il y a sept euh, sept au moins. Mhm. Bougane ku ne ñoo ànd de ku ne da ngay sa bopp d'abord. Mhm. da nga am kuréel bu la cap bu la bu la indi ci coalition bi. Mhm. Bougane gëm sa bopp Khalifa kii euh, bu nu bokk Pape Djibril Fall serviteur. Thierno Bocoum euh, Agir Youm Pur ak ki nga xamante mooy Anta mooy euh, am na nu ko tuddee waaye parti am boobu. Mhm. maa ngi fàtte waaye parti bi te mbaa seetaan li mere moom. Mhm. fa kii bi waaye euh, nouvelle xaw ma la am na ko tuddee ku fàttali parti mouvement Anta bi léegi ñoom six na léegi nag bu ñu tànn ñoom liste c'est-à-dire est-ce que di nga jàpp ne Barthélémy Diaz dina ñëw nekk tête de liste. indiwaat nitam te buggaan to taxaw di seetaan donc day ñëw buggaan ñëw par exemple Pape Djibril Fall ñëw wala nitam ñëw pur wala ñëw wala nitam niti pur ñëw moo tax nga gis Barthélemy Dias buggaan et cetera wala boo gisul buggaan dangay gis ne nitu buggaan moo fa ne. Mhm. léegi nag loolu pour mu jàll il faut si pour yow Barthélemy Dias par exemple moo nekk tête de pour Barthélemy Dias nitam ñëw il faut que siis yi que comprendre nga li ma mhm. léegi siis yooyu bu ñu jàllulee. Mhm. yow da ngay xaar maintenant bu jàllee yow yaa ngi nekk ci huitième position le huitième position boobu léegi soo leen amulee dix députés yow mënoo am possibilité am deux. deux mhm. léegi yéen parce que yéen bu nay même pas sept au total. kon léegi bu fekkee ne da am sept députés mooy kenn su ñoom wala parti bu ne benn député lay am parce que dañ koy séddoo. Mhm. Bart benn il appartient à un parti ou mouvement Thierno Bocoum. benn il appartient en partie au mouvement Bougane en un mouvement Anta à un parti Pape Djibril à un parti Thierno à un parti léegi noonu lay demee léegi pour ngeen am deux députés chacun de vous en tout cas chaque parti bu waree am deux il faudrait ñu am au moins douze députés s'ils sont six leaders il faut ñu am douze députés. Mhm. pour ku ne am deux. Mhm. léegi bu ne bu ne ku ne pour mu am trois il faut également nga multiplier par les six par trois ça veut dire pour nga am. donc dafay nekk douze plus six dafay nekk dix huit il faut nga am dix huit députés alors dix huit députés mënuñ ko am kon dañuy gis ne pur tey perte parce que su boobaa fii mënul fexe bi am trois députés kon perte na yow boo àndee yow kese am nga trois waaye boo ànd ak ñii mënoo am sa trois donc da ñàkk. Hmm. da nga perte politiquement Pape Djibril Fall aussi position bu mu ne je pense que moom mooy huitième position xaw ma septième. Hmm. dégg naa ñu naan léegi six députés la ñu am. léegi bu dee si député yow mënoo am bu dee yaa nekk septième position amoo chance pour jàll bu dee résultat yi la ñu jàpp. Mm-hmm. parce que yaay septième ñoom six ngeen am kon da ngay xaar kon boo moytuwul bu résultat définitif donc yow assemblée doo fa teg sa tànk wala sa nit du fa ne donc yow coalition bi lan la jural loolu perte parce que politiquement je pense li xew deux mille vingt quatre présidentielle bi mais Pape Djibril Fall par exemple deful li war a tax bu demoon. assemblée moom élection mu ñàkk lu mu mu ñàkk mu ñàkk am lu mu amoon deux mille vingt deux. waaw ah, taxawaayam ci assemblée. waaw waaw loolu dafa war a yokk kay léegi yow boo mënul am yow kese garantir yow sa présence ça veut dire que tu as loupé léegi nag loolu loupé la mooy c'est la coalition peut-être qui n'a pas pu euh, convaincre les Sénégalais pour yow ngeen mën a am le nombre député yi ngeen bëgg et c'est le contraire de ceux qui ont et également loolu moo xaw a nekk le contraire de Sall et de. Euh, de de de jàmm ak njëriñ parce que Maguette seen par exemple il gagne sa commune et son terroir. Mmh. qui mm-hmm. fait de lui un plus fort reste. Mmh. Maguette Sène gagné goxam ba pare jàll. d'après résultat provisoire yi day jàll na. mais plus fort reste yi nuñ koy nuñ koy nuñ koy xayma. loolu loolu dañuy xool par exemple calcul la maanaam genre. genre ndesit lay nekk wax maa ngi jégalu pas ndesit mais bu desee bu desee dañuy xool ku gën a jege par ñuy desale kan moo gën a jàkk jekk kan moo gën a jekke pour yegg léegi ah, par exemple dañ lay xëcc par exemple tey mën naa la mën naa la waaw mën naa la jiitu deux fois am résultat yu bees nga rawee ma nga am cinq kon rawee nga ma yoon tamit maa la jiitu woon mais après rawee nga ma hmm. léegi après ci foofu la nekk di dem di dem di des fois nga gis ne diw moo rawoon diw waaye diw gox bële tax na dabaat na la léegi bu résultat yi finaux yëpp amee ñu gis ne ñu xool ñan ñoo euh, par exemple euh, comme mille 2017 non 2022 mm-hmm. oui 2017 2017 mm-hmm. euh, par exemple amoon na neuf plus forts restes mm-hmm. Sonko ci la bokkoon Sonko ci la bokkoon léegi sànq bi ma la waxee ne kan mooy perdant da ngay xool l'évolution Sonko en 2007 2017 benn la am plus mm-hmm. fort mm-hmm. mu dem coalition en deux mille vingt deux mm-hmm. mu am ñaata mu am mu nekk lu ñu tuddee mu créer walla coalition en tout cas askan di créer loo xam musul am Sénégal ñu créer lu ñu tuddee majorité relative il n'a jamais eu de majorité relation au Sénégal c'est la première fois en deux mille vingt deux mooy yow kii nga li nga ëppale kii ëppale woo ko deux wala deux nga ko ëppale loolu musul am Sénégal donc yow évoluer nga tu tu quittes un nga dem ci coalition nga jóge un dem ba 92 97 90 91 nga dem ba ñuy sikki sàkk loolu la parce que li tax nga évoluer mhm. nga jóge ci majorité relative boobu député yi ne faloo ma certes mhm. ba jàpp nga ci campagne waaye taxaw ma falu mhm. wallu ñoom ñu créé seen yëfu bopp d'accord euh, ñu dem ba ci biir euh, ñu def un an euh, taxaw Sénégal ñoom tamit nga commencé gis ñoom tamit ku ne di beru mhm. léegi ñu dissoudre assemblée nationale bi ñu dem élection léegi ñooñu ñëpp doon wax loolu mhm. euh, gis nga leen anañu PDS mhm. demul ci Macky Sall ñaata lañ amul 19 dégg na ay 16 la euh, waa takku wallu ñam baax en tout cas ñi fa nekkoon ñu identifié wu ci ñi ànd ak ñooñu ñooñu anañu tey ñu ngi ci même pas amuñu dix. Mhm. donc te ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci euh, liste boobu ci ci ci ci député yooyu en tout cas di askan bi. Mhm. moom bu mu beroo mu woote ne kaay man léegi man dewuma ci coalition ma damay ànd ak sama parti. Mhm. alors même si loolu c'est frustrant ci wax mais ñi mu àndal mais aussi taxul ñu ñu bàyyi ko. dañ ko topp ba tey euh, Pastef mënul am moins de euh, cent vingt neuf députés. mënul nekk. te parce que Macky Sall par exemple en 2017 il a eu au moins 125 euh, députés. Hmm. Abdoulaye Wade am 19 Pur am 3 Khalifa Sall am 9 mais Khalifa Sall moom kese je dis bien taxawu Sénégal dafa amoon 9 députés est-ce que tey mun na am 9 députés moom kese mënu nekk. Hmm. tey moom sax amul bokkul mais ki ko gën a jege ñu jàppale Barthélémy Diaz coalition boobu mënul am 9. donc da ngay gis ne danoo arrière léegi nag foofu ngay gisee ne am na ñoo xam ne dañuy politique. pare nañ ci ñoom. mais takku wallu kan moo ci dem retraite sax ñooñu. ah takku wallu déjà xam nga retraite gars yi dañuy bañ dem retraite rek. mais takku wallu sàmm sa kàddu sàmm sa.